liggéey bi nag résidence lañ ko programmé résidence présidentielle si làmmiñ Serigne Bass Abdou Khadre lañ ko jëlee ñu wax ne kër gëlee dafa jege Touba jumaa ji fii dañ koo bëgg a defar ba mu ànd ak jamono ndax buñ ñëwee dina yaatu yaatuwaay boo xam ne suñ ñëwee dinañ fi mën a ne euh, kër gi nag toll na si 33 mètres si longueur yaatuwaay si 25 bâtiment bi li muy rëy rëy rëy rëy 8 salon la 4 chambre mooy bâtiment bi néeg boo ci gis am na salle de bain salle de bain 6 bi nag wax dëgg yàlla kenn du ne defuñ ci dara kenn du ne tamit defuñ ci xaalis waaye lépp luñ fi def rek dañ koo bokk ak taalibe yi ñu bàyyi seenu ñaq lépp ànd kook sëriñ bi ñun tam ñu bàyyi suñu yitte yëpp chaque jour fi la ñuy xëy 8 lañuy xëy si ànd kook ouvrier yi 5 heures la ñuy wàcc bàyyi suñu yitte yëpp liggéey bi nag li ñu si gën a neex. comme le sëñ muntaha wax léegi ak soññe na ci ñom ci mom kon ñun nak dañu wara a jaajuwaat ndax sëriñ bi daf ñoo waxon liggéey lañ jox sëñ bi yalwaani dundé mm-hmm. ñun nak lepp lu ñam dajal nañ ko jox ko sëñ bi kon contane nañ ci dañu fas yalwaani waat jëm xol lu ñu dundé ko bi nak dañ doon apa paré li jaar samay lox war na ko 300 millions et quelque li jaar samay lox mais avant am nañ ko yoron mom ñom dik nañ ba toll ci euh deuxième racée boobu côté penko sow bi euh, rasé gul ñu ngi si jamono yi boobu raaxaguñ defuñu dara boobu ñoom waxoon nañ sa jamono yooyu xaw ma nag fekkewu ma waaye ñoom jiite woon nañ bi agsi foofu waaye ñun daal li ñu yor loo xam ne am na loo xam ne jaarutoon samay loxo mais li nga xam ne depuis bu tegoo samay loxo xam nga bu njëkk dafa am kii bi nu muy demee da ngay bind jox diw diw darangam diw nangam laa bëgg ñu jox diw ba jiw egsi li xam ne mooy jaar sama loxo nag mu dem si ouvrier yi ak la ñuy jënd si matériel 300 millions et quelque. bi ñu ko yoree nekk na si deux ans et quelque. am na ñeent ñaari at ak genn wàlla mm. si sëñ Seydi Muxtaar moo ñu ko joxoon liggéey bi nag li tax mu xaw a diire dafa am ay modification yoo xam ne il faut que mu la mu diire loolu la waral diire waaye bu doon euh, dañoo ñëw rek àggale day liggéey bi romb nañ fi kon ña nga yaar ci yeneen liggéey waaw entretien bi nag comme ni ko sëriñ bi waxee léegi sëñ Muntaxa delloo na caabi sëriñ Seex ne ko na gën a rafet na gën a ànd ak jamono te toppatoo ko népp nu mu waree woon kon fas yéene na si bu ko sëñ bi tegaatee suñu loxo nam ñu ko tegoon lépp lu ci war danañ ko toppatoo ba nga xam ne boo ñëwee da nga yaakaar ne nañ ko nañ ko beese woon noonu lay nekkaat ba léegi bañ ko door rek léegi soo ko boole lépp 3 ans la boo ko boole lépp 3 ans ndax sëñ si dama taan la woon ko doxal si loo dox doolee boppam xale yàlla def na ba nga xam ne ñu sëriñ bi ko rakkam mu jox ko ci bi jox na ko ñaari bi nag man maa ci gën a gone xëy yalla da am def ci man ba tax na mu xol ma ne man njàng ca kanam tay sant yàlla nañ yalla ndax metti woon na lool ba ñuy sa mbooyoo ma amuñ suñ tok tay buñ demee bay taali kilim sant serigne bi rek peut-être ki dafa defarlu won serigne Madou dafa defarlu woon sëñ Madou euh, ab nek bo xam kër goo xam ne du ko yàq sawara du ko yàq ndox du ko yàq mm-hmm. serigne Madou nak defon kër ga bam jek kon tabax la laajoon sa jamono yooyu mu defar tabax ba mu tabaxee ba pare nag daawoo bàyyi faal yi ak waa kër Cheikh Anta na leen solal leen lay dem ci biir def wutal leen ko ñun nag ren lañ mos a def lu kenn deful ndax sëñ Modou bi mu defee loolu dafa woo sëñ Touba defee loolu dafa woo euh, waa kër Cheikh Anta na wut lay dem ci biir def leen ko ci ak Baye Fall yi ñun sëdd yi nag ñoo jaayante ne lépp loo xam ne kër gi warloo na ko nañ ko jaayante ba nga xam ne buñ ñëwee kenn du ne jël leen nangam defaat ca dañu ñëw fekk ko ca mooy war a lii nii